ma jigéen tey jomet bi dañoo waroon a déglu waajoo xam ne nag dañoo jox jomet ba pare li ko waaj def joxaale ñu ab numéro téléphone am ni nañ ko wasaare mais xam nga nag euh, jomet du doxee noonu mm. maanaam ñun duñu du ñu weeral kenn ab numéro am fii te amuñu ci droit waaye liñ mën rek mooy liñ la def nga expliquer ñu wax la ko pour ñeneen ñi yeew waaye balaa loolu dafa am caaxaankat bu ñuy partagé te caaxaankat bi gën a mag moo ma ko partagé mm. <laughs> waaw ñu déglu ko te ñëw

Touba te Macky Sall dégagé ko te dañoo war a dégagé wu lu mu jàpp sonal leen di leen gaan ci ay manifestation du dëgg du yoon moo tax man combat bi damaa bëgg ñu taral kenn bàyyi ñu amul liggéey ñëpp nañ nekk si mbedd yi maanaam di sàcc di sàcc dagg ay xar voilà ku la rey aljana nga jëm parce que da ngay jaar réew mi baaxagut bu baaxee nag sàcc moom dañuy dagg sa loxo loolu mooy dëgg bi mais fu nekk nii euh, euh, loolu du sàcc sax xiif lekk la parce que da ngaa ay waxam xam nga mënul àgg fenn fi jox ko kii ne ma non xam nga waa ji yàlla xam na ni caaxaankat bu mag a mag a mag a mag a mag moo nekk nii non non attends mais ma jigéen réew mi ban fitna moo fi am léegi ah léegi yow amoo liggéey ne ci mbedd bi bëgg ay morom bëgg a nax sa waa kër bëgg a nax sawaa kër naan dañuy xeex ba léegi pare ci xeex bi ndax buñ kër Sonko ko bi dañagul bi ah? loolu dëgg la ku fi wàccee sa xar dinañ ko tabaskee ala yow sooy man daal li ma mën wax ji mooy que waa jii nii Assane Mesere moo ko wax loo eh, ay wax non non non non lii nag lii nag waa ku ko dàq jaaxaan amut waa ji bëri caaxaan dëgg dëgg dëgg waaw waa ji bëri caaxaan nee leen nañ muñ ba waaw ah. parce que waxam ji maanaam philosophie bi Assane am la maanaam tabaski warut a am ren <laughs> non waaj na bàyyi caaxaan léegi waa ji non suñ ko ñi koy lay too bari na lii mu wax nii non c'est li mu wax nee na day li ma ci gën a def rek mooy day xeex ñu ngi ci xeex combat bi pare waa jeene waa day xeex léegi fi bu ji laajee bu doon moom bu gisee Sonko reyum xar di tabaski nag. waaw <laughs> te waa ji xoolal attan naa xëy yendu ci àll bi dox yi ba ñëw naan kër Sonko laa yendu. lu leer laa la wax man waa ji c'est que lii sooy bu hmm. da lay wan ne fi dëkk bi toll parce que xam nga hmm. li tax ojo waa ji deex waaw mooy da lay wan ne la dëkk bi jamono jiñ toll nii hmm. euh, nit ñi prétexte la ñuy wut am na ñoo xamante ne bii tey manifestation <laughs> maanaam prétexte la ñu buñ sañoon xar du dugg ci dëkk ah, bi kon boo déggee ñoo xam ne dañuy ñëw naan nañ xeex waaw maanaam bañ a jënd xar ah, bañ a tabax sañoon xar du dugg ci dëkk bi bu ko defee ñaan waaw lii lépp gis nga ko bu buñ toogee di wax ak soxna yi naa leen gis nga xar amul parce que buñ toll nii gis nga manifestation yi ah léegi tabaski gi moom kay ren moom ku yàbbu moom jéem a peese bon yore peese mu ndawal nga waaye saay bee boo ñu xam ne xar yi ñu ngi wàcc waaw nañ ñaan yàlla tabaski soxna yi nañ xam ne xeex amu fi tabaski ci jàmm na jéem a wuti ji sobleeg pomme bi teeram waaw jéem a euh, wuti jim xar tey fexe soxna yi sañse waaw na te daal ñaan yàlla daal jàmmaam waaw yàlla na yàlla na jàmmaam bu defee yàlla na ko sunu borom may am tabaski ba bu ko defee xeex bi yëpp du ko ci fekk waaw ñu ngi wax ñi nga xamante ni bi tey ñooy joxe ay kiiwu tabaski nañu xool nañ euh, euh, identifié waa ji jox ko xarum tabaski parce que bu dee moom xarum tabaski tax mu bëgg continuer xeex bi non moom moom il faut ñu régler problème am quoi waaw il faut ñu naan bu fi xar wàcc dañuy dañoo nekk na bàyyi xar yi wàcc nag parce xeexut waaw wax dëgg yàlla moom naan nañ ko laytaay nañ ko laytoo boo ko dimbalee de war a mën a dimbali te na xam ne nag soxnaam xàmme na baatam dégg na ko Assane mi ne waa ji laa waa ji mm. ah. soxnaam ak seen waa kër xàmme nañ baatam ah, na xam ne day tappale ci tappale yi nag waaw xeex bi jeex na dara amu fi ah, yàlla yàlla bu mu amati waaw nañ wuti ay xar te te xotti ku amul sax nga wax sa waa kër dëgg waaye looy looy laytoo barikaadu kër kër jaamur bi ñu barikaade kër jaamur ah naan lañ ko tegoon guñ ko jamono bi nee na ko ku sàcc da ngaa xiif lekk ah, bu réew mi normalé nag moom ku sàcc ñu dagg sa ah, lii du ay caaxaan caaxaan dëgg la waaw ah, ngi lay ziar baax baaxsan ñoo lay ziar de safo dina la wasaas def lu baax rek moom ci dugaloon daal mi ngi noonu def lu baax moo ko ci dugal waa ji histoire bi nam na demee yëpp suba incha allah dinañ ci ñëw mm. euh, ak numéro téléphone waa ji bi ñu jox wala boog waa ji bu dee mi ngi dégg lii ma jot a teg na xam ne jox nañu ab numéro am bu subaa ma jox ko ma jigéen mii nga xam ni macha allah euh, luñ ko jox mu jàllale ko boo deful li ma la wax woo waa ji wala nga jël ko téléphone dinañ jox sa numéro suba ma jigéen dina ko jàllale dina ko wax fii numéro bi xaaral mi ngi nii 77 624 ak la ca topp la ca topp suba la ko ma jigéen di wax jëlal waa ji wala nga wala nga woo ko kon boog bu subaa ak jàmm alaaji incha allah ci kàttanu borom mi ngi noonu mbokk yi kon jërë ngeen jëf jërë gërëm ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci digital bi sama gars yi wax leen dem leen ngeen abonné ci page Facebook Walfadjri yokk doole euh, beneen xeex beet mooy euh, ku mënta joxe mille francs wala nga jël 1000 francs ñëw jënd si demal ci page Facebook Walfadjri yi mu am yëpp nga abonné boo abone nga bës cloche de notification bi loolu moo lay may bépp émission bu fi jaar rek mu daal la koy signalé euh, te nga dem ci seen YouTube bi itam fajiri la itam nga dem nga abonné fa boo fa rek dafa mel ni sa 1000 francs yooyu yegg si na